waaw kon euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yéen ñi doon topp seen télévision almouridia lii mooy programme bi ñu leen andil tey muy bisub àllarba dëppook juróom-ñaari fan ci weeru koor euh, muy 21 avril 2021 kon ni ngeen ko gisee euh, njàng mi waxtu wi nga xam ni moom la ñu àppaloon mat na kuréel bi nga xam ne moo ko ay woon mooy kuréel bu daaray Touba dégg ngeen ñu def ko ci njàng mu am solo ñëpp bég ci sëriñ bi bég ci ñi nga xam ne tam ñoo yor gunge bi war a xaar sëriñ bi mu génn gunge ko ba mu àgg barabam mooy kuréel 3 bu Touba kon niñ leen ko waxee dafa mel ni tey daaray Touba ñoom ñoo ay njàng mi ñoo ay gunge bi muy tawféex joo xam ne amati nañ ko ci mën a dund dund li nga xam ne mooy weeru koor gi fii ci kër sëñ Touba gi ci saal bi nga xam ne lii programme bi mooy li daal ci weeru koor bi fan yëpp di weeru koor bi yëpp fii la ko sëriñ bi fas yéene euh, am amale diggante 17h30 ba 18h30 muy waxtu woo xam ne fi mu ne ñëpp jàpp nañ ko xanaa ñi nga xam ne ñooy door a dab suñuy programme ñu yëg nekkoon kon lii nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba keroog weeru koor gi di mat muy tawféex gu rëy ñu delluwaat euh, wax li nga xam ne moo ñu ñor ñor kenn ku ci ne ñor murit yëpp ñor taalibe yëpp mooy Serigne Mountakha yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi koy fas ci xasida yi ñu ngi koy fas ci jataay bi ñu ngi koy fas ci weeru koor yi fidèles téléspectateurs daal Euh, vous venez donc de vivre en direct cette prestation des écrits sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, cette psalmodie des Khassaïd de Serigne Touba qui a été faite aujourd'hui et le euh, kuréel qui était à l'honneur, c'était le kuréel 1 de la Daara Hizbut de Touba et le kuréel qui va se charger de raccompagner le khalife jusque dans ses appartements, c'est également le kuréel 3 de euh, Hizbut Tarqiyyah de Touba. Donc euh, cette classification kuréel 1, kuréel Ces chiffres dont ces courriels sont flanqués ne révèlent que euh, une classification qui va de pair avec l'expérience des courriels, qui va de pair avec la dextérité des courriels. Et c'est ainsi que l'on peut voir Hein, euh, plusieurs courriels dans une seule dara. Nous l'avons dit la dernière fois et bien expliqué. En ce qui concerne le programme d'aujourd'hui, le euh, répertoire qui vous a été proposé est un répertoire très riche. Cinq productions de chez Amlouamba, nous retiendrons simplement le premier qui s'appelle Fousti, qu'on appelle Fousti. Et mais Fousti, c'est peut-être le liminaire du poème, le premier terme du poème, Fousti Bizarre Villassanat. Mais euh, qui connaît la poésie arabe, c'est que c'est d'abord un acrostiche euh, du verset Fokouli Washrabi Bihi. Mange et bois par ceci, c'est la traduction française. Et le cheikh a fait un acrostiche, c'est-à-dire à partir du verset Fokouli Washrabi Bihi, il fait à partir de chaque vers mais à chaque pile de chaque lettre, un vers. Ce qui fait donc 12 vers, 12 vers qui sont entièrement consacrés à un hommage à la Vénérée Marie, la pieuse mère du prophète Insa. Et le cher, n'est-ce pas, nous avions dit la dernière fois qu'il est inclassable parce qu'il a écrit dans plusieurs domaines. Et figurez-vous, ce poème-ci est un hommage rendu à la pieuse Marie, la vertueuse mère du prophète Insa ibn Mariam. Donc voilà donc également une thématique qui en dit long, mais c'est un poème qui est également surchargé au plan des aspects techniques, au plan des aspects poétiques, parce que figurez-vous, c'est un acrostiche, donc à partir d'un d'un verset, le cheikh a composé un poème en prenant un, un, une lettre de chaque, euh, de chaque euh, de ce Chaque lettre de ce verset, il en a composé un poème. C'est déjà un fait. Il y a aussi le fait de l'utilisation de la rime. Hein, c'est une rime en qui, qui, qui, mais on se rend compte qu'il y a à l'intérieur une rime intérieure et on voit que Fousti est composé de 12 vers qui sont 4 fragments chacun et dans ces 4 fragments, les 3 premiers rimes entre eux en marge de la rime euh, qui est la rime principale en qui, qui, qui jusqu'à la fin. C'est dire donc que c'est également une pratique euh, qui est très chère au cher et qu'il utilise très souvent, ce qu'on appelle l'ozoum à l'ayalzam, c'est un surpoids de difficulté que le cheikh s'impose en utilisant euh, une, rime principale et dans chaque groupe de vers, il fait une rime intérieure. C'est également, peut-être le temps ne pourra pas permettre de tout égrener, de tout développer, mais c'est un poème qui également est prodigieux au plan formel, qui est un poème qui une euh, véritable euh, réussite, n'est-ce pas, sur le plan formel, Et c'est pourquoi également il est bon de faire ressortir ces aspects parce que tous ces poèmes qui sont déclamés sont bien choisis et en termes de contenu, c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont chères aux, aux mais également au plan formel, on voit que la maîtrise et la dextérité du chef, n'est-ce pas, est, une chose très fabuleuse. Lui qui disait qu'on lui a, n'est-ce pas, assujetti <laughs> le le, le, secret de la langue arabe, mais à lire ses poèmes, on le rencontre Donc la déclamation, c'est une chose, parce que ces poèmes sont faits pour les déclamer, mais au plan thématique, au plan du contenu, mais ce sont des poèmes qui sont d'une richesse inestimable. Nous saisirons l'occasion, n'est-ce pas, de ces relations pour ouvrir, n'est-ce pas, quelques brèches, mais le temps, on le sait, ne permettra pas de tout s'étaler, mais au moins, on pourra en tout cas faire siroter à chacun, n'est-ce pas, le contenu prodigieux de ces poèmes qui au plan formel comme au plan du contenu, mais sont d'un prodige, mais cela n'étonne pas lui qui disait Karamati Khatuyadi. S'il y a un prodige qui est attaché à son, n'est-ce pas, à mais c'est bien ce qu'il a écrit de sa propre main. Et nous allons donc égrener quelques-uns de ses poèmes et nous ferons chaque fois, il y aura une sorte de leçon du jour par rapport au répertoire proposé pour que l'on puisse joindre l'utile à l'agréable. Merci de nous avoir suivis et à Euh, tel qu'il sera proposé. C'est le Kourel 2 euh, de Dakar qui sera à l'honneur et l'accueil sera assuré par le Kourel 1 de Saint-Louis. Donc Dakar pour la prestation dans la salle et le Kourel de Saint-Louis pour l'accueil du chef. Puisse Dieu lui accorder une très longue vie et une très bonne santé et que Dieu le garde parmi nous très longtemps encore. Merci d'avoir été fidèle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala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 خير ضيف أتى بالبشر والمداد يا خير ضيف أتى بالبشر والمداد